en parlant de dialogue il faudrait comprendre que ni dialogue appel bi c'est tey c'est pas la première fois mm-hmm. il y a eu des dialogues quels ont été les résultats quels ont mm été les résultats qui ont été appliqués à l'issue de ces dialogues mhm. nga jékki-jékki woote waat dialogue tey jii kii parmi ceux qui sont sur la table peut me dire quels sont les termes de référence de ce de ce dialogue mhm. personne ne le sait on me dira que su gaañ ñëwee à l'ouverture on mettra les termes de euh, référence mm-hmm. mais su ma amee man ay amendement ci termes de référence yi mm-hmm. mais il fallait le donner bien avant que les gens comprennent on va dialoguer sur ça sur ça et sur ça les gens bu amee ay amendement ñu def ko mm-hmm. ensuite dialoguer sur quoi exactement en parlant des termes de référence bu dee le fichier électoral y a une loi qui dit que en tel moment suñu ko appliqué y a pas de problème tout le une révision c'est déjà passé consultation peut-être moo fi des lu fi des le bulletin unique on l'a proposé au niveau de l'Assemblée nationale ça peut se régler là-bas mm-hmm. lan moo fi deseti encore euh, je ne sais pas le problème des des des, des candidatures des uns et des autres en, en savoir euh, Wade et Khalifa Sall mmh. régler au niveau de l'Assemblée nationale en révisant l'article ou L30 donc quel est le problème lan moo fi indi dialogue dialogue pour lan on dialogue sur quoi donc loolu ñun d'abord moo nekk suñu problème ensuite koy dialoguenteel te boo ko joxee ngeen waxante du ko àggale wala du ko def mais keroog bi Covid bi ñëpp sottee bi nga xam ne dafa woote rassemblement ñëpp ñëw. mais le leader de Pastef dafa dem ba mu demee li mu ko wax le point essentiel yëpp moo doon sur la gestion de ce. de de de de ce capital qu'on sort. Mhm. ba mu ko ko waxee defu ko les résultats sont donc koo xam ne bu la woowee aussi boo waxee ak moom du ko jël en considération loo koy wuy ji doyee donc loolu mooy problème dialogue bi bon le dialogue de F24 en fait on dit dialogue mais c'est un rassemblement waxtaan mais on dialogue sur quoi ñoom ils n'ont aucune décision à prendre mënuñ jël benn décision tout ce qu'ils peuvent mooy dajale ay euh, ay propositions jox ko kii te ça ressemble là à un moo jaaxal de moi c'est la question que je voulais poser. non tout ce qu'il peut faire en en fait. de référence. en fait ce qu'il peut faire. mooy rassembler wu génne certains points souligner ko mettre ko dans un kii et le soumettre à quelqu'un à qui. <laughs> la grande question. voilà c'est ça la grande question. mais quoi qu'on puisse dire. tous ces problèmes-là on parle de dialogue ça ça pouvait se régler au niveau de l'Assemblée nationale de l'État. maa du kon da jàpp ni li ñenn ñi di wax naan kon du man gëm naa ni man personnellement gëm naa ni. parce que deal aussi le mot. non le, le, le mot deal est trop fort non non le mot deal. deal mën na nekk lu positif ah. non non deal gars yi bañ mais deal. waaw mais non non le mot deal. il faut il faudrait que l'on comprenne une chose il faudrait que l'on comprenne une chose parce que le problème du Sénégal actuellement ñaari affaire la il faudrait qu'on le comprenne suñ ko liiree noonu après dafay yomb Sénégal ñaari problème la am en ce moment. koo xam ni warta bokk ci élection bëgg a bokk ak koo xam ni dafa war a bokk ñu koy jéem a tere bokk mais si les deux problèmes soo réglés d'une manière ou d'une autre le problème est réglé d'accord mais si si si si le le le le président pose dans ce dialogue là sa candidature mais logiquement les gens devraient arrêter tout de suite le dialogue et rentrer chez eux et savoir que c'est pas un dialogue c'est autre chose hmm. c'est mon point